situation bu déplorable laa ko jàngate ndax euh, parti dafa am réglement intérieur am ay charte yoo xam ne moo tënk parti tey bu fekkee ne da nga nekk ci biir partie bi ne da ngay fipp euh, jëmal feneen commission de discipline la mu war mooy taxaw doxal la nga xam ne moom lay dem ma di ko rafetlu bu baax a baax a baax ndax képp koo xam ne yaa ngi ci partie bi danga nga war a méngoog li nga xam ne parti bi mu ngi koy doxal euh, te it loolu it président Macky Sall maa ngi ko ci soññiwaat bu baax a baax que képp koo xam ne li waraloon parti bi jéggi nga ko na sanction parti bi dal sa kaw. loolu moom euh, may appelé waat Moustapha Diakhaté c'est un ami c'est un frère que président Macky Sall euh, magam la léppam la na ñëw ñu toog waxtaan déggoo la mu war a déggoo te it yu bare bari ñu moytu ko parce que it euh, man dama jàpp ne ki nga xam ne mi ngi ci woon ci biir système bi bi muy nekk ci biir système bi waxul deful tey position ñëw président yét ndax wax dëgg yàlla kenn ku ne xam na ne tey du bàyyi benn équipe rek muy gestionner affaire yi tey kenn ku ne parti bi da ci war a sentir sa bopp bu ñu demee ba benn moment mu changé waat yëf yi na nga am ngoru la nga noppi woon démb nga noppiwaat ko tey ndax ne bari nañ ci ñoo xam ne bi ñu leen changé it ñu ngi fi toog dañu jàpp ci parti bi nañu war a jàpp taxaw ca nañu ko war a taxawoo défendre ca nañ ko war a doxaat dëgg man maa ngi ci maa ngi maa ngi rafetlu décision bi nga xam ne euh, comité bi de doxal na ko tey ko keneen ku ko ci jàdd nga dugg ci biir parti bi nar fee indi front nañ la dàq. centre social bi euh, donc xam nañ ne président Macky Sall bi ñu naalee Mbacké Kajoor bi mu ngi ñëwee effort yi mu ci def. jafe ne président de la république jafe ko ndax centre de santé poste de san centre de poste de santé la Mbàkke Kajoor war a am mais tey centre de santé la Mbàkke Kajoor war a am brigade gendarmerie Mbàkke Kajoor am na ko ñu ngi en travaux yoo nga xam ne travaux yi dem na à 80 pour cent tey boo demee mën nañu ànd ba ci brigade ba keroog bi président toogee def na fi ñaar yeneen ñaari forage donc kon man jàpp naa ne président Macky euh, la may faral di wax rek pacte ba nga xam ne lii woon na ko ak Cheikh Sidi Moukhtar da koy doxal lam te man bu baax a baax a baax kon am na ay effort du ma ne lépp a baax ndax lépp a baax moom kenn du ko wax am na ay effort yoo xam ne président Macky Sall def na ko fi mais am na ay effort yoo xam ne maa ngi appelé waat le gouvernement ñu gën a yokkaat seen i effort en tant que disciple boo xam ne dama bokk ci kër gi wax dëgg yàlla li mu fi war a def nag moom mi ngi koy def sama dernier mooy moo di centre le président de la république di sant le ministre Dame job ci effort bu am solo xam nga lu tax ma gëm Dame Diop dafa gëm président Macky Sall man gëm ma président Macky ci politique képp ku ko gëm ma gëm la ñu bari dañ naan ma effort yi ngay def ci Dame Diop ndax mateen nga ko ma ne képp koo xam ne gëm na président Macky Sall gëm ko Dame Diop dafa gëm président ma ko amul plan A amul plan B son plan c'est le président Macky